mu ñëw ma jox ko lëngi comme mu prêter serment te kenn falu la. su élection amul kay prestation. xam nga Macky Sall bi conseil constitutionnel waxee ne joxe dogalam le 15 février. guddi googu bu ne waa ji ubbil sa machine sama décret bu ma jëloon novembre. changel ma date bii nga def telle date parce que conseil constitutionnel loolu la ma sant wax ji jeex na. ça veut dire qu'il n'a jamais eu l'intention de respecter. non décision au fi mu bindee communiqué décret xaju fa ah, te delloo na jours pour def ko. non non le dafa bind communiqué ni dafay tonk ci li. conseil constitutionnel wax foofu décret xaju fa xëj na fa surtout que Amadou Ba bëgg nañu amal. élection yi donc contre signature bi du problème. seen candidat na pare <laughs> nga kon instant yii ñu ngi en campagne électorale déggoo kenn démb muy wax ne. léegi candidat amatul parce que démb la ñu waroon wote te démb passé na. waaw loolu la ci jubloon ah, ci sunu micro la ko waxee sax. voilà loolu la si jubluwoon. Mhm. démb la woon élection yi te démb passé na donc fu mu ne nii candidat amatul. beneen procédure la ñuy def. mais mais on ne peut pas se du conseil constitutionnel à ce point là. moom Lamine Diante li ma laajoon Clédor laa lay laaj est-ce que yéen jàpp ngeen ne président Macky Sall à partir du 2 il va partir. non c'est-à-dire xam nga mandat bi constitution bi moo le 2 avril lay jeex parce que le 2 avril 2019 la prêté woon serment le 2 avril 2024 la jeex buy jël décret dafay bind vu la constitution te jamono jooju mënul viser la constitution parce que constitution bi dàq na ko kon ban décret lay jël. kon léegi lan ngeen di séentu yéen à partir du 2. non cest à xam nga keroog waxoon na te démb aussi waxaat na ko. <coughs> le 2 incha allah dinaa jeexal sama mission ci boppu Sénégal. li mu ci waroon teg mooy ma jóge ci boppu réew mi. te waxul loolu. te waxul loolu léegi nag dialogue bii ak format bu mu def dafa bëgg nit ñi wax ko ne te. da nga dégg dégg ngeen. mu ne booru euh, balaa nawet. donc dafa bëgg a toogaat balaa nawet mënuma wax nit ñi ne da ngay nekk ci euh, koor gi dem leen battre campagne moom lu ci yoonam du ci dara c'est pas c'est pas problème. moom campagne koor gi commencé gul ci jullit yi. Mm-hmm. mais catholique yaa ngi wóor. moom bu bu bu bu ñu jàppoon kii bi on serait encore dans le carême pendant bu bu dee jëluloon décret bi le trois on serait dans le carême pourtant on va voter. Oui. Mm-hmm. pourquoi maintenant si on est dans le ramadan kenn du voter kenn du dem campagne. le 10 mars euh, la gars yi waxoon ne mun nañ ci tëgg élection mais loolu dégguñu fenn. mu mu tudd ko walla mu wax ci. xam nga Fatou man sama conviction mooy bu ñu jàppoon le 24 mars 24 mars on a le temps de faire trois semaines de campagne électorale à partir du du premier mars mm -hmm. on a le temps de faire trois semaines de campagne électorale on a le temps d'aller voter le 24 mars mm -hmm. avant le avant la fin du mois les résultats définitifs le 2 avril Macky Sall Macky Sall kay euh, serment Macky Sall jógee mu dem mu dem benn tour lay l'essentiel non il a ses ses ses ses, ses sondages. mais loolu fa la ko la Tour mais loolu la ko teg. sondage. sondage kese la la vérité de la vérité de monsieur monsieur Diané. léegi nag non sondage boobu c'est avant muy def toutes ces conneries là ba Sénégalais mere ko. <laughs> il le sait que élection yi en un tour da nga koy plier wallaahi mu gisal xam na ko. kon léegi. premier tour. les sondages les plus alarmants les sondages les plus alarmants faits par le, le pouvoir donnent à Bassirou Diomaye Faye 54 pour cent 54 pour cent. ñoom ñoo ko def. waaw waaw ñoom ñoo ko def am na ci yoo xam ne 71 pour cent la ñu jox Bassirou Diomaye Faye il le sait 24 mars bu organiser woon élection yi Sénégal lay pare ci te avant le 31 mars xaw ma le 30 mars on aura les résultats définitifs le 2 avril. Bassirou Diomaye Faye génn Cap Manuel ñoo prêter serment au conseil constitutionnel dugg palais. d'accord ci sax mais mais dé démb dalal nañ fi quand même euh, maître Abdoulaye mu nekk koo xamante ne xam-xamam màcc na lool ci wàllum yoonal mu jàpp ne ci àpp bi nga xamante ne moom la code électoral bind wax ne ci la élection mën a am ci réew mi weesu nañ ci euh, app woowu noonu maanaam jamono jii pour élection mën a am. ñaar moo mën a nekk président su jëlee décret conseil constitutionnel wax ko ne décret bi nga jël baaxul te soo bëggee mu baax faw ñu delluwaat fa nga xam ne moo di assemblée nationale soppi la nga xamante ne moo nekk ci code électoral maanaam ñu voté boo xamante ne day soppi code électoral boo xamante day permettre décret bi nga xam ne président jël na ko mu nekk décret bu conformé wu ak li code électoral wax loolu ban gis-gis nga ci am. no man li ma wax gënul loi jànguma loi jàngalewuma loi mais gënul loi. ah mais jàpp nañ ne. non c'est que c'est que maag maag maître Tine. même même démb sax na ko. maag maître dañoo bokkul fu ñuy waxee. maître Tine dafa jël hypothèse deux tours une élection à deux tours parce que un premier tour bi da def trois semaines de campagne noppalu le lendemain euh, bés bu ci tegu ngeen voté. Mmh. résultat yi une semaine à huit jours la bu ñu dee dem deuxième tour ñu defaat quinze jours de campagne mmh. la lendemain ñu noppalu. après sur lendemain ñu voté ñu xaaraat deux ou trois jours ñu am résultat yi loolu boo ko compté xëju fi moom dafa nekk il est dans une hypothèse d'une d'une élection à mais, deux tours mais loi loolu prévoir. <coughs> prévoir. il est dans une hypothèse à deux tours. ndax loolu xëj na fii ak le avril. Mm-hmm. mais dama ne mais mais mais loolu. loolu la code électoral wax nest mais xam nga damay laaj code ndax ndax moom la code électoral wax. code électoral li mu wax. waa cest à que c'est les grandes extrémités. mais am na 2019 benn tour lañ def. Mhm. defuñu deux tours. mais mënoon na am deuxième tour. mënoon na am deuxième tour mais amul deuxième tour. waaw mais te bii nag du mën a am deuxième tour. lu tax du mën a am deuxième tour. parce que nee naa la ñoom def nañ seen sondage. Macky Sall mais monsieur Diagne loolu yow tey tey mënoo dem ci sénégalais yi ne leen code électoral euh, su ko parce que code électoral su ko newul ci sondage. code électoral dafa am loo xam ne da koo bind mu leer. Jérôme. day ah, ci dëkk bi. mais su ma nekk ci dëkk bi xam nga li les sénégalais ak lu xam nga li sénégalais di wax monsieur ak lu ñu nekk ci dëkk bi <coughs> man li ma lay wax man yoon laay wax parce que tey su ma sukkandiku bu nu ma sukkandiku ci loo xamante ne xëy na day dem ci faveur benn candidat mais li nga xam ne moom la yoon tënk wax code électoral dafa ne élection ci ñaari tour lañ ko mën a def premier tour su jeexee ka am ndam am na ndam su jeexul second tour la ñuy def donc tey mënuñu ko ci ne Macky Sall day gagné premier tour Khalifa Sall wala Diomaye wala Sonko wala keneen day gagné premier tour ñu mën cee yemale kii bi euh, vote bi dañuy jël ci ñaari ñaari ci ci ci app yi nga xamante ne moom la code électoral wax donc dans ce cas est-ce que mbir bi ne ci xaj na fi xaj app boobu ku ko yàq mais euh, nañoo ne président Macky Sall ak ak ak ak non euh, xam nga conseil le quinze février la génne décision waaw nit ñu ngi ko doon xaar le vendredi. Mhm. parce qu'il avait huit jours pour répondre le 15 mu génnee rappelé Macky ne le 2 avril la mandat bi di jeex. Mhm. conseil constitutionnel de. waaw ah. mu ko il faut que nga fixer date dans les meilleurs délais xam nga sama j'ai un peu la <laughs> formule de. Euh, la boutade islamique la boutade la boutade de Cheikh Bara Ndiaye. nee na date dafa nekkul nit moo tax ma Sall jàpp ko bu doon nit la kon jàpp na ko. <laughs> mandat de dépôt ko <laughs> dafa dul nit rek nee na <laughs> bu doon nit la. kon Macky Sall jàpp na ko bu pare bu voilà nga. le 15 boobu. Hmm. bu Macky Sall jëloon décret. Hmm. li nga tin wax yëpp mën na xëj avant le 2 avril. moom moo bañ a jël date. il a pris tout son temps. Le Conseil constitutionnel a demandé aux autorités compétentes de prendre les dispositions toutes les autorités compétentes sont en train de prendre des dispositions parce que ci diggante bi joxe nañu fichier électoral bi. Mm-hmm. Macky Sall du foofu foofu bëgg naa ci ñëw après. Macky Sall moo respecté wul le conseil constitutionnel wax. Mm-hmm. parce que les services du ministère de l'intérieur ont délivré le fichier électoral. au mandataire de Diomaye. au mandataire. en tout cas ñun suñu mandataire a jot na. mais yéen a yéen kese ko jot de jot ah en tout cas ñun jot nañ ko. Euh, ah mais est di ngeen jot bu baax bi la. ah di ngeen jot bu baax bi la. ñoo ngi ñu ngi koy càmbar. mais même bu dee bu faux la sax. Hmm. mais au moins ils ont fait l'effort aujourd'hui on peut leur prêter une intention de bon foi.